mel ni kon lu ne rek kuréel bu ne rek ña ca gën mooy ña ëpp lu ñuy tudd yàlla imaam ahmad dafa nett li jëlee ci moas ibnu jabal radiallahu anhu mu wax ne dafa am benn waay bu laaj na bi salallahu alayhi wa sallam ne ko ñiy jihaad ana ñu ci ëpp ak pay mu ni leen ña ëpp lu ñuy fàttaliku yàlla ña ëpp lu ñuy tudd yàlla ñooñu ëpp ak pay mu laaj ko ni ko ñu baax ñi ñan ñoo ci ëpp ak pay mu ni leen ñi ci ëpp lu ñuy tudd yàlla ñoo ci ëpp yoon mu tudd ko julli waaye julli ana ñan ñoo ci gën ñi ci ëpp ak pay mu ni leen ña ci ëpp lu ñuy tudd yàlla ci seen birub julli noonu la ko tuddee ko aj tudd ko sarxe lu ci ne yonent bi di wax ni ña ca ëpp lu yàlla daal mooy ña ca ëpp ab yool ba foofu Abubakar wax Omar ibnu Xataab ni ko yaa aba Hafs dahaba zakiruuna bi kulli xayrin kon de yow sikkarkat yi yóbbu nañ yiw yépp nee na yonente bi ni ko waaw xadis boobu ahmad ak tabarani yi ñoo ko nettali kon jataayu sikar muy jataay buñ toog di fa tudd yàlla jàng alquran di fa jàng xasida dafa am ay teggeen yu mu laaj moom la sëriñ bi wax ci masalikul jinaan ni wa udda min aadaabi dikri zaakiri juluusa abdin fi makaanin taahiri mustaqbila alqiblati daata rabbuci aw mutawarrikan kaman salla faaci mu ni bokk na ci teggini ku toog di tudd yàlla nga toog ci jotaay bu laab ba noppi jublu penku sarank laayu mbaa nga bank say tànk mel ni kuy julli بنوتي خيني وخد جنيه طيب رائحة إذ لا يخلو مجا لا تخلو مجالس الذكر إذا ما يجلو من الملائكة باستماع ومؤمن الجن على الإجماع dafa bëgg ki toog di jàng alquran mbaa muy jàng xasida mbaa muy tudd tur yàlla mu toog toogaay bu njëkk bank ay tànkam mbaa mu ferank laayu xeeñoo xet gu neex ndax nee na jafaay bu mel noonu da dul da dul ci ay malaayka fokk rek ay malaayka dañuy teew di déglu mbaa jinne yi kon nga jox leen war ma loolu sëriñ bi lim na ko ci teggini kuy sikar